Eh, alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, alhamdulilahi sant yàlla bu baax ci eh, oh, man la Ibrahima Mahmoud Diallo ci jamaa Chérif Cheikh Ibn Khayr bu Mauritanie Sénégal wax naa ko sànq ne xew-xew bi xew la boo xam ne bi eh, bu tumuranke la ndax eh, kuréel yi yàgg nañ di wuute ci àdduna bi ay diplomate yu mag ci àdduna bi yu ñu ràññee naa ci tudd ko mel na Henry Kissinger nekkoon secrétaire d'État américain seen ngiru dund ñu ngi dem di négocier pour wut jàmm ci diggante Israël Palestine ak ci yeneen maanaa eh, ريو على كل حالين ما دوند نانشي غورغولو بغن ادنا واي ندام ليغا خامني مول نتي سنتون يالا ديفوكو ا الحمد لله خليف بي تودي بوبام الحمد لله خادم منا امتي نان خادم الامتي غا خامني موي نمو موي سيرفيتور كوميونيتي محمديان ci eh, eh, eh, ben voyage ci ben jetaay ci benn discours ci discours boo xam ne bi du lu ñu bind ndax tiimul ci kayit matul deux heures de temps lu mu tolloog juróom fukki xabila tribu de sànni seen ba wàcc seen arm lii du mbiru xelu doomu aadama du xereñ du diplomatie du politique lii karaama la karaama bii nag wax naa ko sànq eh, yàlla mooy feeñal karaama Cheikh Ibrahim Niass kii jagle bu yàlla defal Cheikh Ibrahim lii Cheikh Ibrahim moo ko toggoon bam ñor mu nar fee jóge jébbal ko taalibeem xaadimu xadaraam imaam Seydi Alioune Cissé kooku yor ko yor bu rafet sàmm ko bay génn àdduna teg ko ci loxo taawu Cheikh Ibrahim bu góor muy Xaj Abdallahi Cheikh Ibrahim Niass moom it kazaalika mu rafetal ko ba waxtum jot ba liggéeyam wàcc ba mu wàcc liggéey maanaam teg ko ci loxo rakkam muy Alaaji Ahmed Papa Dam moom it kazaalika mu rafetal liggéey ba waxtum jot mu wàcc ko ci rakkam Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cheikh Ibrahim Niass fii nag la mbir mi commencé alhamdulilahi ala kulli halin di fës ba yàlla in def li muy soob rakam yi tay di xalif bi wutu len ñom ñep di Mouhamadul Mahi Cheikh ibrahim Niass alhamdullah mbir mi nag commencé yàlla commencé di ko fessel waaw yàlla commencé di ko fessel motax mané li luñ togg lu yàgg la te aussi lim tuddé bopam ne mom du xalifa waye khaya khadim mana serviteur umma bi la ummat rasul alayhi wasallam du tamit du lu jomba ندخ الشيخ ابراهيم نيا صباح نكو من ولو علم الاقوام اني خادمه من ماغني خمنا ني من ماي ليغي كات يونتبي صلى الله عليه وسلم فوصل حبيب الله يلفى بوصليا جوكو اك مانا سوبي يال مي نينكو امي سي جوكو اك نون كون الحمد لله رب العالمين لي يونتي يال داف دافال اي معجزات موي اي كيمتان ولي يوم دافال اي كرامات لي كرامه لا du politique du diplomatie àla kulli moo tax it événement mondial donc Nations Unies bu ko bëggee ko joxee prix Nobel mondial de la paix laa loolu du lu jomb àla kulli waaye mbir mi mi ngi ci kanam encore donc ñun ñëw nañ fi ci wóotu euh, suñ sëriñ suñu wasila ci Cheikh Ibrahim di Chérif Cheikh na Khayr nga xam ne bi xalif bii dem fekk ne mi ngi nekkoon ci ay itte ay tiis magam bu wàññeeku ak dem umra waaye bi mu dellu see lim njëkk a def mooy ñëw toog Médine di xaar xalif bi di ko teertu ñun ñu ñëw wuutu ko fii tey ci aéroport moom muy xaar fële ci Médine incha allah suba ñu fekk ji ko foofu. jërëjëf kontaan nañ ci kàddu yu am.